bonjour à tous et bienvenue sur Walf TV rafet lu baax ni ngeen di ànd ak suñu programme fii ci leeru jamono sur la 93.6 aussi euh, rawatina ñi nga xam ne ñooy suñu xarit yi ñuy topp si Facebook bi gërëm leen sant leen mu doon te ci ñun ñu dellusiwaat euh, fii nga xam ne moo di seen plateau seen ndekki ñu ko defee saa su ne euh, du lundi au dimanche fii ci Walfadjri télévision fas yéene ci indi nag yeneen yoo xamante ne saa su ne da ngeen ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ngeen ci faral di àndal ci mel ni Miss People docteur kër gi Mamika waaye tamit euh, Miss Beauté euh, ki nga xamante ne moo di Béti fàll ak euh, ganub Mamonta ci kanam tuuti li ngeen ànd ak moom itam léegi léegi ma bàyyi leen kàddu gi ñu dugg ci li nga xamante ne tey moom la ñu naa waxtaanee tàmbale koog Béti ma lay nuyu bu baax. ñu di leen fay yéen ñi toog fii di nuyu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan di leen nuyu di leen jaajëfal comme liñ ko tàmm di defee chaque matin tey ñu indil leen rubrique. Euh, collier tey collier laa leen indil ci accessoires yi laa ñëw euh, maa ngi nuyu Mamika di nuyu Coro di la nuyu mami euh, di nuyu suñu gan maa ngi leen di nuyu bu baax. d'accord ci kanam tuuti dinañ xool accessoire ak mbirum collier. Mm-hmm. Coro Mbaax Ndiaye Miss People. maa ngi nuyu Zeyna di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi Mamika ni ñu koy defee tous les matins di nuyu madame Fall bi ci defee ni ñu koy defee également tous les matins di nuyu ki nga xamante ne moom moo di euh, suñu gan tey ci euh, rubrique savoir vivre savoir être comme tous les matins c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de petit déj di amaat mbégte ak bànneex di teewaat ci plateau bi di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan ci réew mi ak ci biti réew kilifa diine kilifa aada fépp fu nekk ñi ngi lay nuyu noo nos amis internautes yi ñuy toog sur walfnet.com wala suñu xarit yi nekk ci Facebook bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu auditeurs ak téléspectateurs yu Walf Fadjri ni ñu koy defee tous les mardis ñu amaat su mbégte dalalaat keneen ci euh, plateau bi moom nag Balla Diouf lay wuyoo kër de Lion di mbër moom la ñu fas yéene dalal tey ci seen rubrique people comme tous les mardis dina fi teew ci kanam tuuti ñu fas yéene waxtaan ak moom lépp lu ngeen bëgg a xam ñeel kooku lee nga xamante ni moom moo di kër de Lion Balla Diouf di ngeen ko am ci seen émission Petit kanam tuuti incha allah. sa papa bu fekkee na mu nekk doo ko lancer appel waa lancé ko appel mu di ko moo gën balaa émission bi di yàqu <laughs> mu maa ngi leen nuyu. ñu lay fay bu baax Zeyna madame Sarr di nuyu également les de la radio télévision Walfadjri euh, nu ñu koy defee rek saa su ne lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram euh, dañuy waxtaanee euh, feebar bi ba nag comme nag mu yemoo ko mardi dañuy waxtaanee lu jëm ci wàllu avancé ndax nag avancé boo ko gisee si wàllu feebar mun naa laal li nga xamante ni moom moo di chiffre mun naa laal également li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu feebar bi maanaam ñi nga xamante ni ñi muy dal. ñaata la ñu toll ak yi ni mel ba tax na ci kanam incha allah dañ ci xuus ci ni mu gën yaatoo fii ci seen émission petit déj xam naa ci kanam lay doon incha allah. ci kanam waaye laata loolu dañuy bàyyi kàddu gi ak suñu gan moom euh, monsieur Ba di euh, sociologue euh, ñëw bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñu seet. jërëjëf <clears throat> soxna si ma leen di nuyu maa ngi nuyu seen téléspectateurs yi ak seen auditeurs yi di rafetlu émission bi. Euh, xam naa bu ci kanamee nañ ko ci suñu waxtaan bi. incha allah voilà ak Mamanta Ndour lay doon ñeneen ñi nga xam ne ñaax nañ nax nañ fi teew yi tamit jàppale ni euh, bokk na ci ki nga xamante ne moom mooy euh, Pape jaay borom justice moom mi nga xamante ne nag saa su ne moo ñu teewal fële ci tribunal bu Ndakaaru ci kanam tuuti nañ ci ànd ak moom ci lu jëm ci wàllub rubrique boobu am solo boobu mu ñuy defal mardi bu jot jëm ci wàllub justice Mamanta Ndour yi tamit ci kanam tuuti dinañ ànd ak moom ci savoir vivre savoir être tout de suite on avec la page Wafaay Santé ñuy waxtaanee hépatite B comme ni ngeen ko déggee sànq ki nga xamante ne moo di docteur kër yi wax na ko ci li muy ñëw tey nag moo jëm rek ci wàllub euh, avancé wu maladie bi itamit ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub chiffre ak yeneen yu ni mel. voilà avancé feebar bi la ñuy waxtaanee tey di hépatite B wala sax feebaru res bi ndax nag boo xoolee 240 euh, millions wu doomi aadama dañuy jànkonteeg feebar bi ni mel boo ko saytoo ci àdduna bépp euh, ba tax ne nag hépatite B nekk nag feebaru res des fois dafay daal di euh, law ba nga xamante ne mën na indi cirrhose wala sax lu jëm ci wàllu cancer du fois ba léegi nag lu jëm ci wàllu avancé mën nañu daal di xool li nga xamante ne nag moom moo jëm ci wàllu vaccin maanaam vaccin bi nga xamante ni moom moo lay Euh, ci feebar bi nag di hépatite B boobu nag daal di nañ ko génne euh, ci atum 1982 boobu nag boo ko saytoo ci wàllu pourcentage euh, maanaam 95 pour cent donc dina la aar ci feebar bi ni mel ba tax ne nag dina la aar ci feebar boobu waaye nag lépp luy lépp luy cancer lu jëm ci wàllu cancer fois dina la ci aar bu baax a baax ba tax ne nag lu jëm ci wàllu itam avancé mun nañu xool que ni li nga xam également beneen chiffre 780 000 personnes euh, ñoom itam dañuy daal di faatu ci feebar euh, bi ni mel euh, ba tax ne nag feebar bi nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu ci wàllu reste ñu gën koo xam ci hépatite B nekk na feebar bu nga xamante ne c'est un problème de santé publique ci loolu nag boo ko xaymaa ci wàllu pourcentage ñi nga xamante ne dañuy daal di infecté dina toll ci 5 à 10 pour cent ci population bi waaye nag euh, un taux élevé bi nga xamante ne moo nekkee ci bassin euh, am am amazonien ak euh, partie méridionale bu Europe ak orientale waaye nag fi nga xamante ne nag moom moo di centrale xam nga ci njëlbeen maa ngi doon wax li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu cirrhose itam bokk ci xeetu feebar yi nga xamante ne dafay laal res bi te lu ci ëpp li nga xamante ni nag mun naa mun na mun na dem ba law indi la li nga xamante ni moom moo di cancer mun nañu jàpp li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu cirrhose li koy joxe mu bokk na ci euh, naanum sàngara su bari euh, ci naanum sàngara su bari ak li nga xamante ni moom moo di surcharge de fer euh, wala sax cuivre ba tax ne nag facteur yu bari mën nañ ko sax entraîner mun nañu mun nañu mun nañu euh, tax nag res bi daal di compressé daal di feebar euh, ci law boobu nag mu daal di indi cancer euh, du fois mais lu ñu mën a jàpp rek moom mooy que ni fii nag ci réewu Sénégal donc lu jëm ci wàllu hépatite B xool nañ ko ni nag dafa daal di wàññeeku parce que nag at bu jot semaine bii nii ñu génn lañ doon lañ doon lañ doon célébrer journée internationale de l'hépatite B donc ci loolu nag daal di nañ ci def ay jàngat yu am solo ci jàngat yu am solo yooyu noonu mooy que ni feebar bi nga xamante ni moo jëm ci wàllu hépatite B Euh, dafa daal di wàññeeku bu baax a baax euh, ci loolu nag daal di nañ tala suñu micro ki nga xamante ni euh, moom moo di docteur Cheikh Ahmed Tidiane Mbodj ci ngir nag mu daal di ñu indi leeral lu jëm ci wàllu avancé ci ndimbalu Mame Sidi su nekkee ni élément bi pare na ñu daal di koy seetaan dellu siwaat ci plateau Petit Déj gën a yaatal waxtaan wi nag hépatite B nag te ndeyu jàngoro boobu ñuy wax virus de l'hépatite B di ko jox muy jàpp res bi di ko lakk mu am inflammation euh, def nañ ci ay jéego yu bari parce que tawat boo gis ni mi ngi nekk ak ay nattangoom ñoom amuñu ñakk te yow nga am ñakk loolu mooy wane ni euh, def nañ ci ay jéego ñakk yooyu nag euh, am na fu nekk léegi te ñakk yooyu dina tax li nga xam ni mooy musiba yi mën a indi yi nga xam ni feebar bi moo koy indi muy hépatite B duñ ko am nañuy fexe nag ba jox ko xale yi euh, jéego yi tamit nekk na ci euh, faj bi ku ci am hépatite B chronique am na naam euh, faj bi cher na trop ndax molécule yoo xam ne ay junni junni dollar lay kooku du ñun ñoo ko mën a am nuñ ci waree mais bu ci ñëpp jàppee rek dina baax am na ay yu ñu naan antirétroviraux ak yoo xam ni interféron yooyu yëpp mën nañu wax ni ay jéego la ci feebar bi xam nañ tamit feebar bi ni muy demee ak li muy def yëpp mu nekk jéego yoo xam ni jéego gëstu la ba képp kenn koo xam ne am nga ko wala docteur yi nga xam ne ñoom ñoo koy saytu am nañu fu ñuy jaar ba xam nan lañ koy faje voilà docteur yi nga xamante ne ñoom ñoo koy saytu xam nañu fu ñu jaar ba xam euh, am nga euh, feebar euh, bi ni mel ndax nag dañ lay defal prélèvement ñu xool ndax nag am nga ko wala amuloo ko ci kaw prélèvement boobu noonu la ñuy daal di mën a saytu yow am nga doomu jàngoro bi nag di hépatite B te nag daañu la mën a defal bu ko teelee saytu daañu la mën a defal lu jëm ci wàllu traitement ci feebar bi ni mel. Mm-hmm. Mm-hmm. savoir vivre savoir être xam ngeen ni mardi bu jot dañ ci ànd ak ki nga xamante ne moo di Mamanta Ndour euh, moom mi nga xam ne nag teew na ci plateau bi ma bàyyi ko kàddu gi mu nuyoo daal di dugg ci waxtaan wi ak euh, ganam euh, di lu sociologue monsieur Ba ci kanam tuuti lay doon ngeen na xool nag lépp loo xamante ne nar nañ ko fi waxtaan Mamanta ma lay nuyu. fay naa la bu baax a baax soxna bu Ndiaye di nuy bu baax a baax ñu ma bokkal plateau bi madame Fati di Betty. madame Fala waaw madame Fall bi ni ko waxee moom <laughs> ah, madame Fall bokk balaa monsieur mere ma madame Fall di la nuy bu baax a baax di nuyu bu baax ki nga xamante ne moo di. Euh, Thioro Mbar Ndiaye ah. <laughs> bul um sa bopp. <laughs> madame Ndiaye man jëkkër mooy sama jëkkër <laughs> kon Ndiaye au carré bokk. Mm-hmm. Thioro Mbar Ndiaye Ndiaye. di bu baax a baax di nuyu suñuy téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu tout le temps sur euh, Walf TV ci seen rubrique euh, savoir vivre savoir être ñu koy defee tous les mardis di ci ànd ak yéen di nuy itam ñi ñuy teewlu sur la 93.6 naan leen dal leen ak jàmm ci rubrique savoir vivre savoir être. Euh, li nga xam ne mooy la ñuy wax li ñuy waxtaanee tey nag euh, ak sama invité di docteur euh, Ousmane Ba nekk sociologue ma di ko nuyu bu baax a baax fas yéene nag waxtaanee ak tey lu ñeel wàllum actualité xam ngeen savoir vivre savoir être saa su ne dafay rebondir ci wàllum actualité tax tey jii nag ñu fas yéene wax lu jëm ci visitu Macky Sall bi jiitu réew bi Macky Sall nga xamante ne demoon na aljuma bi weesu fa nga xam ne moo di université Cheikh Anta Diop ba mu fa demee nag déroulé luñ ko tapis rouge au de pierre la fa fekk plus de pierre yoo xamante ne euh, daal nañ ko ko euh, joor euh, ba maanaam wëyalul visite bi nam ko bëggee woon maanaam dem ba fi nga xamante ne moo di chambre 168 A bi nga xam ne fa la nekkoon loolee lépp motalu ko xeer yooyee ñu koy sànni institution xeer yooyee ndax jekk na ñu koy sànni institution ndax institution bi itam taxawaayam nekk na bi war ba tax ñu koy sànni xeer yooyee loolee lépp dinañ ci waxtaan ak conséquences yi mën a jural suñu réew Euh, sur le plan international loolee lépp dinañ ci waxtaan ak suñu invité mais bala ñu ciy sóobu ma bàyyi la rek nga nuyu ak suñu téléspectateur. jërëjëf euh, soxna maam Anta euh, maa ngi lay nuyu du rafetlu émission bi nuyu seen auditeurs voilà donc euh, euh, ginnaaw nuyu boobee ñu daal di def li nga xamante ne mooy xool euh, suñu élément fàttali rek ne nag on avait prévu élément boo xam ne dafay ñëwaat rek ci l'ensemble de reportages yoo xamante ne defoon nañ ko ci wàll wi ndaxte bi avant le jour de la visite de Macky Sall demoon nañ deux jours avant daal di xool li nga xam ne moo di melokaanu université bañ demee li ñu fa fekk moo di ay coppite maanaam ñuy defaraat li nga xam ne moo di tal yi di jekk jekkalaat lépp luy nii de ñu daal di ko daal di masque def li nga xamante moo di goudronné waatal yi ak itam euh, le jour ji ci suba si amoon na sama naataango bu fa dem mu di Omar Kayre jot na fa dem ba mu fa doxantoo nag accès bi c'était difficile que pour nga duggoon fa nekkoon na itam jafe-jafe pour presse bi duggoon def li nga xamante ne moo di liggéeyam sur place nekkoon na jafe-jafe ñuy filtrer entrée yi loo xamante ne mësuñ ko gis foofee nga xam ne moo di université wante ndegam dañ ne président dafa waroon a dem moo tax ñu amaloon euh, euh, doxalin boobule léegi nag li lañ leen di proposé moo di reportage bi nga xamante ni suñu naataango Amadou Limbay jot na ko fa def mooy le jour euh, de la visite nga xam ne Macky Sall ba mu demee teeru nañ ko ak ay xeer xanaa ni ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy reportage boobule ànd ceeg Amadou mbay ak la régie Mame di Diop Papis Mbaye ñu dem. ay xeer ak ay morceaux yu xonq la étudiants yi teertoo njiitu réew mi ca université yi. ñoom étudiants yi nag maire ba Fuuta li ñuy sàkku mooy yoon def liggéeyam ci faatug Bassirou Faye ñoom nag yokk nañu ci di tuumaal ñenn ci seen naatangoo yi ne dañu leen a guerre université université sax la wuñu fête dañoo dee dañoo sonn on a suñu souffert on a sonn Macky Sall moo Macky Sall moo ñu sonal Macky Sall moo ñu sonal daawu Bassirou Faye gi matagul daawu Bassirou Faye moo war a leer ba noppi Macky Sall li mu dégloon étudiants yi def ko ko def justice lañ bëgg université suñu maanaam yooyu seen ay dañ leen jox xaalis corrompre leen dañ leen jox xaalis corrompre leen ak yéen président mais li ñu def defuñu ko gëmuñu Macky Sall xaalis moo tax ñuy def lii ñun xam nañ lépp yeneen étudiants yi nga xamante ni nag ànd nañu ci dikku njiitu réew mi ci biir université ba di rafetlu liggéeyam am ñun kenn mënuñu taxe de corruption kenn kenn volonté la jógee pour war ko ne non Macky Sall tey ñun xaarewuñ ko xaalis joxuñu xaalis ñun ci suñu bopp ñooy jël suñu moyen suñu doole ak suñu ñax ak suñu ko tey ñi nga xamante ne ñooy yuuxu di naan dañ ñoo ger seen idée la. jàppal bàyyi yi ñu nemmeeku nag ci dikku Macky Sall ca biir université ba tax na ba njiitu réew mi Macky Sall mujj la dem comme ni mu ko waxee woon ca pavillon A ngir siyaar chambre 168 di néeg bi mu dëkkoon bi mu doonee étudiant. mu ne dafa métti madam Fall nga ne dafa métti xeer yi heureusement xaañuñ ko buñ ko xaañoon bañ defal ko kii fii waaw doy na waar li ñuy def euh, léegi léegi mooy xanaa euh, daal di jàll ci waxtaan bi docteur Ba Ousmane Ba sociologue ñu daal di lay laaj docteur Ba lii nga xamante ne mooy image yi ñu gis si. télé bi bu dee euh, dañ ko fësal ba mu dem sur le plan international ñu gis ni ñi ngi sànni xeer institution bi réewu Sénégal ci boppam la sànni xeer parce que euh, avant tout le président moom mooy euh, état moom mooy ëmb li nga xam ne moo di réew mi état léegi li nga xamante ne mooy kanam xar kanamu Sénégal boobu ñu daal di ko teg benn chaîne international loolu pour yow lan lay wane Euh, soxna maam Anta je pense que <clears throat> euh, il est important que ñu xam d'abord balaa ngay wax au plan international lan mooy rôle université xam nga tey jii euh, université Cheikh Anta Diop nekk na université boo xam ne révolution bu am Sénégal rek fa la jógee alors université dafa am ñaari vocation mooy d'abord gëstu ak jàng mooy maanaam étude ak recherche bu ñu fa yóbbee ay étudiants c'est juste que ñi nekk ay modèles maanaam ñu tàggatle bi nga xam ne ëllëg bu ñu génnee ñu mën a yor réew mi c'est ça mooy lu mooy vocation université mais lu ñu gis par exemple CREC euh, boobu nekk na loo xam ne lu métti la parce que université c'est vrai avec l'entassement des étudiants quatre-vingt mille non seulement quatre-vingt mille bëri na ci benn université ndakaaru yaatuwul et ensuite xat-xat boobu déjà tax na effectivement mu am lu ñuy woowee par exemple un cocktail euh, boo xam ne euh, d'explosion il suffit moom benn affaire rek moom frustration la théorie de l'entassement mais je pense que étudiant euh, normalement c'est-à-dire fu ñu fu ñu fose mooy xam nga njiituroo buy ñëw euh, préparatif bi ñaar ou ñetti yëf la par exemple dinaa ñëw sa question bi mais il faut mu analyser de profondément pour nga la nga ñëw ci image alors image bi c'est-à-dire benn bi mooy normalement université dafa am lu ñu wooyee des organisations officielles structure officielle. maanaam ci nekk mooy maanaam autorité yi universitaires yi mooy étudiants yi mooy enseignants yi mooy personnel administratif léegi nag bu ñuy dalal gan structure officielle yi la ñuy woo ah pour préparer ko dama lay wax sociologie. te dama lay wax sociologie université non il faut nga dëkk campus. pour nga mën a xam sociologie université. waaw mais ah, je crois li ngay wax noonu doxalee nañ ko. parce que boo gisee matukaay yi ñu jël yëpp euh, avant la visite du chef de l'État Macky Sall loolee lépp doxal nañ ko. service coûte ma nga fa woon taxawaay. en dehors de en dehors de structures officielles yi. Mm-hmm. moom la la bëgg a ñëwul. les renseignements généraux non non dafa am structure officieuse. Mm-hmm. foofu laa bëgg ñëw ci yow. cest à bu ñu préparé kuy ñëw structure officielle yi la autorité université di waxal. waaw mooy légal. Mm-hmm. mooy maanaam ci wàllu étudiants yi lu ñu woowee amical si wàllu seen kii euh, enseignants yi syndicats yi la ñuy waxal par syndicat euh, ñu liggéey université tamit syndicats yi mais ci wàllu étudiants yi am na ñeneen ñu ci bokk ci loo xam ne c'est pas c'est officieuse alors que am nañu doole université. waaw mooy kuréel mooy daayira yi déjà mooy ñoo xam ne ils sont informels mooy master pour tous non orienté. Mm-hmm. ñooñu ñëpp ay kuréel ci biir foofu. mooy parti maa ngi ñëw mooy parti politique yi mooy association régional association de Mbour de Guédiawaye et cetera. Euh, région bu fa dem. am moom laay ñëw ni moo tax ma lay expliquer lii c'est-à-dire bu ñu faussé c'est-à-dire fu ñu jëluñoo en compte dimension boobu te dimension boobu moo gën a am doole effectivement que structure officielle yu am ci wàllu étudiants yi. Mhm. wàllu amicale et que donc le campus social la plupart des chefs ñëw campus pédagogique la ñuy pourquoi parce que ñooñu ñooy officiel maintenant ci biir campus social liggéey bu ñu ci naroon def ci boole ñooñu ñëpp xëy na peut-être liggéey boobu moo desoon. maanaam bu ñu leen associé woon ci préparation bi xëy na peut-être lu du am. mais nag dañ koy dañ koy méttiwul xam tamit dañ koy méttiwul. Mhm. parce que sànq da nga posé benn question. parce que un chef d'État c'est une valeur républicaine c'est un symbole quel que soit alpha des jeunes am na droit parce que aussi la presse aussi quelque part c'est-à-dire bu ñu waxee pari risqué c'est pas un pari pour un chef d'État un chef d'État et fu ko la dem ci mhm. parce que avant mu doon ñëw dañuy wax c'est un pari risqué pari. mu président de la République munu parier ak kenn. mais la presse a juste fait le ah, constat. moom dañoo constaté daal la bu ñu analyser ah la ñu basé. pour ma ne systémique responsabilité étudiants yi engagé na mais aussi bu ñu waxee par exemple Paris pour man un chef d'État fu ko nekk lay dem parce que man dama politique fu ko neex lay dem si territoire parce que boo demee ba nga réaliser ay mbir nga naan fa dem pour cette il faudrait effectivement que lu mu dee dee dee gan dañ koy dañ koy dañ koy wormal. dañ dañ koy wormal mais bu fekkee gan bi taxawaayam maanaam def na fa mu jëm mu def fa li nga xamante ne mooy ñoom li ñuy xaar ci moom mu am yi mu fa taxawal yoo xamante ne bu ñu ñëwee xanaa dinañ ne ah def na fi lii def na fi laa je ne veux pas ñu daal di verser dans la politique parce que après dinañ ñëwaat ci li nga xam ne moo di image bi euh, mais euh, bu fekkee moom taxawaayu état des na côté boobu. bu boobaa est-ce que du euh, ni ñu ko teeroon ni tamit c'est logique on peut parler de Paris. waaw mais xam nga teeru lieu bu gën newuñu stade c'est-à-dire champ bu ñu nekk champ xeltukat la sax dama la wax ni vocation universelle la. waaw loolu c'est la triste réalité. parce que lorsqu'on parle de temple du savoir. léegi on est ñu ñu ñu formé wala. étudiants yi dañoo gëstu dañu dañoo dañoo amatul idéologie boo xam ne dañu mun a am contradiction ak ci président de la République ñëw na interlocuteur sûr et certains pour que ñoom ñu am seen doléance ak seen projet ak seen mémorandum parce que aussi am na loo xam ne parce que ICAT 2 nee na je vous ai écouté je vous ai entendu et donc ça veut dire que ñoom bu ñu amoon par exemple euh, nu tudd des projets bu ñu amoon lu ñu naroon wax du point de vue on n'est pas au du point de vue intellectuel le champ universitaire c'est-à-dire duñu doon xaar. ñoom lu ñuy gëstu am na ay master am na ay doctorat yu fa ay ay fa nekk ñooñu ñu jël ñu tënk ko ci kii ñu ne président vraiment dañu bëgg ko wax ak yow voici les réalités quitte à ce que toutes les structures yoo xam ne ñu ngi foofu ñu jëbal seen seen mutuelle seen projet jox ko président de la République. Mm. loolu la doon xaar waaye université loolu moom dañ koy dañ koy méttiwul parce que du président la République lañ ko def. bi mooy peut-être dernier. bii lan la ñu ko def état au Sénégal non defoon nañ ko defoon nañ ko par exemple euh, defoon nañ ko Souleymane Bachir Diagne. Uh-huh. bu mu doon CNAS ah, ah, ah, bi c'est-à-dire dama bëgg wax ni. c'est la succession qu'on qu'on laisse. des choses finalement persona non grata. Mm. parce que aussi les étudiants n'habitent pas à l'université. d'accord léegi ñu ñu ñu ñu avancé euh, Ba ñu avancé ginnaaw euh, ni nga ko ñaawloo donc ni nga ko ñaawloo dañuy mën a jàpp ne rek di image bi rafetul. a jàpp vous avez la question mais lu ci euh, am maanaam euh, ginnaaw sortium bi mu def euh, ba ay xeer fekk ko fa li nga xam ne moo di entourage am gaa ñi ngi def li nga xamante ne mooy jël ay mesures maanaam jëw étudiants yi nga xamante ne ñoom lañ xas ba jàpp assise ak yooyu jéem a def li nga xam ne mooy ay sanctions mais ba léegi ci entourage yu jiitu réew bi dañuy gis ne am na ci ñoo xamante ni dañ koy xaw a ñàkkal solo ci loo xamante ni c'est à déplorer une institution buñ jël daal di ko euh, sànni ay xeer buñ toogee ba euh, benn ci euh, proche du président la je vais le citer nekk le un ministre conseiller nekk donc moo di ci nguur gi moom bu demee ba naan di méngale lu ñu mel ak un épiphénomène naan euh, maanaam épiphénomène maanaam di ko ñàkk solo euh, il a il a fait savoir dans une radio de la place si benn débat politique bu mu doon def mu daal di ko méngale ak épiphénomène loolu est-ce que du dem ba maanaam. Euh, euh c'est paradoxal par rapport ak ni ñu aggraver la chose moom mu koy méngale ak un épiphénomène. non non mais il faut nga distinguer ñaari yëf. ne la dafa am loo xam ne politique moo ko moom am loo xam ne état moo ko moom. lu état moom police mi ci def enquête parce que aussi état administration ñii dañuy dem. mais quel que soit Alpha moom xëy na peut-être structure euh, statut politique la am xëy na peut-être pour wane ni ñoom peut-être ils n'ont pas échoué parce que aussi c'est c'est c'est c'est quoi ça c'est euh, euh, des rapports de force c'est le discours politique c'est le discours politique souvent qu'il faut recadrer or état dama koy dama koy dama koy différencier état dafa am yoonam moom bu waxee épiphénomène la mais les forces de l'ordre ak lépp loo xam ne état ci lan la àndu ci wàllu sécurité ñoom ñu def seen liggéey daal kenn bu nu xatal la ñu seen liggéey ba effectivement ñu jëm donc en mais en tant que ministre ça pose encore la question de ce qu'on appelle le, le profil de nos mm-hmm. parce que aussi euh, lii yëpp dañuy jàngal leneen mooy booy tànn ay ministre wala booy tànn ay mbir da ngay xool d'abord nit ki xool ndax xam na état parce que aussi munoo munoo mënoo méngale parce que la personne la plus indiquée c'est le ministre de l'enseignement supérieur te gis nga naxaru na ko ba woo na ci sax ay tous les acteurs sociaux. à savoir même les kilifa euh, kilifa diine pour ñu mun si par exemple waa xale yi. mais est parce que même moom Mary Teuw Niane tout le monde xam euh, ñëpp xam nañ ni que étudiants yi moom la ñu bañ a gis ak bët euh, euh, parce que xëj na même yenn saa yi mu wax leen yoo xamante ni da xam ni dëgg la mais xëj na ci anam bi mu koy waxee est-ce que également un problème de discours c'est-à-dire dirigeants yi dañuy am une une manière on s'excuse du terme vraiment arrogante de parler à ces étudiants ba nga xam ni yenn saa yi ñoom aussi xale yi boo atteindre seen orgueil ñu fippu oui je pense que loolu aussi c' est il faut euh, discours communicationnel bi tamit am na solo ci li nga ko waxee parce que aussi mënoo yor ay xale ba pare am parce que bon la personne de de de moi moi je parle pas de personne parce que je parle d'un système parce que quel que soit Alpha il, il déroule un, politique gouvernementale alors ce qui fait que étudiants yi gis nañu effectivement surtout waa UVS ak ñeneen ñoo ne non orienté ils ont des problèmes euh, fondamentaux ak par le ministère de tutelle alors boobu dañuy gis ni parfois effectivement loolu ça a mooy déteindre presque la visite de Macky Sall bu mu ñëwee xëy na peut-être ñooñu moom la buggoon par président pour mu xam réellement ce qui se passe par rapport si réalisation yi ñu wane mais xale boo yore yoree moi je dis une chose cest à l'université les étudiants sont pas difficiles cest ce qui est important à l'université c'est de pouvoir comprendre si vous la sociologie des étudiants. d'accord léegi docteur Ousmane Ba euh, wax nga ko tout à l'heure rek euh, li nga xamante ne donc mooy wane la réalité li nga xamante ne mooy li am université mais leneen lu ñu nemmeeku maanaam avant cette visite dañoo gis ne dañoo meubler lépp lépp loo xamante ne mooy euh, lu jaarul yoon foofu ci université bi defaraat tali yi defar fi nga xamante ne jiitu bi foofu la war a jaar tout est beau quoi pour wane ne ko lépp ngi dox à l'université loolu a toujours xamante ni ñi ngi dëkk ci université bi am na ñu fa loger am na ñu fay jàngee ah yow mettre leen dans de bon condition jiitu réew war fa ñëw euh, def li nga xamante ne mooy inaugurer trois pavillons rek tax nga daal di def li nga xam ne moo di euh, mettre at lépp ci yoon ah juste pour euh, un après-midi boo xamante ni jiitu réew war na fa ñëw inaugurer ay pavillons. waaw xam nga xam nga université c'est c'est à l'image de la société. c'est-à-dire luy xew société moo xew si université. ah kon la société sénégalaise. foofu laay ñëw non foofu laay foofu laay mën ñëw <clears throat> parce que président bu dem feneen. c'est partout. non bu euh, conseil ministre décentralisé loolu gis. c'est partout. waaw moom laa moom laa lay expliqué c'est-à-dire ñu ñun il faut pas ngeen université comme mu nekk benn entité isolée. déedéet non mais tey université lañu. Oh, moo tax rek ma ñëw parce que ñu fay ñu fa nekk. ñoom ñoo nekk société bi. donc ça veut dire que effectivement lu jar si société moo jar si université léegi le fait que ñoom ñu def loolu xam nga y a ce qu'on appelle des des politiques ça ça nous amène même de la non politisation des universités par exemple président nar na ñëw fenn ah, débat bu on l'avait posé à à l'université est-ce que di nga am gan bon je donne un exemple parce que léegi y a des collègues qui ont dit est-ce que di nga am gan mun na ñëw mu yëgale day ñëw mais nu mu dee dee di nga defar sa salon tuuti. am na ñu wax loolu am na am na ñu ne par exemple gan buy ñëw au moins sa salle di ci xaw defar tuuti quoi ab coppati parce que au pour surtout gan boo nga xam ne yaa ngi koy teeru non am na ñu wax loolu dama la expliquer théorie non dama non dama discussion amoon na est-ce que par exemple da am gan nga bay sa salon mu meloon noonu wala da am gan da ko nar teeru waaw c'est-à-dire quel que soit alpha avantage la ñun parce que non c'est un avantage la parce que ñoom bu ñu bu dee defoon ñoom loolu président nar a ñëw xëy na ñin ñi jël par exemple engagement fu mu naroon jaar ñi boole si yeneen yoo xam ne bokkul sa su mu naroon jaar ñu defal ñu ko effectivement ñin ñu fay yëngu seen avantage la. est-ce que avantage bi nekk ñu bàyyi ko noonu. moom président ñëw gisal boppam gisal ko boppam daal di. moom la moom laa lay expliquer nii c'est-à-dire deux choses l'une mun nañoo gisal ko boppam dem du ci def dara c'est des hommes politiques parce que bu ñu amul intérêt duñ ci def duñ ci def dara yaa c'est-à-dire il faut il ñëw benn yoon xëy na peut-être benn yoon ci mandat am mënoo am peut-être chance bu mel noonu léegi da nga ko a exploité da nga ko nar a exploité exploitation bi mooy lan mooy est-ce léegi da koy bay mu ñëw mu gisal boppam mu dem yoonam parce que moo la gën a xam lu xew foofu. il a les renseignements généraux wax nga ko tout à l'heure mhm. a des extra des des autorités koy information à lu bees li nga xamante ne mooy euh, jafe-jafe yi ñu fiy dund loolu moom xam na ko déjà donc mu ñëw fa di euh, amal yenn yi ba gis ni université dox na aussi comme ni ma ko sama ni ko sama naataango waxee rek c'est la société qui est ah, euh, mooy dem di déteindre ci suñu politique société hypocrite bi dem di déteindre ci suñu université bépp entreprise boo mënti dem bépp organisation lu koy lu a mën a résumel mooy université tant que mi ngi am ay mouvement politique tànk que ngi am loolu même ñun ñun gëstukat yi bu ñu demee ba ñu dugg ci ay politique déjà mun na salfaañu sax suñu étude ak suñu recherche ñuy def. parce que la nopp no université dafa nar a nekk lu nga xam ne euh, ñu fay yëngu dañ dañu nar a saytu société bi ba pare jël ko jox ko gouvernement bi pour ñu mun ko appliquer. ak Pape Ndiaye lañ ci àndal comme mardi bu jot niñ koy euh, defee euh, tey nag mu indeeti rek comme d'habitude euh, ay sujets yoo xam ne nar nañu ci indil ay leeral ñu tàmbali mbirum Bassirou Faye waaw daanaka ñetti dossiers yooyu mooy li nga xamante ne moom moo gën a fës sax ci li ñu nar a waxtaanee muy mbirum Bassirou Faye ak tamit euh, Matar Ndiaye ñu gën ko xam ci turu njaga muy jeune bi nga xamante ne moo ñàkkoon bakkanam fii ci Grand Yoff mm-hmm. ak également étudiants yi nga xamante ne dañ leen a teg loxo ginnaaw nga xamante ne ajjuma bi weesu njiitu réew mi teewoon na fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru euh, ginnaaw gi mu am ñu bëri ñoo xamante ne teg nañ leen ci loxo ak tamit dossiers yi nga xamante ni moom moo war a ñëw fële nga xamante ne moom mooy euh, tribunal bu ndakaaru tey jii Zeyna nga may ma balaa may dugg ci dossier bu njëkk bi nga may ma ma am benn alerte boo xamante ne dama koy lancé mm-hmm. muy benn situation boo xamante ne dafa xew fële nga xamante ne moom mooy maison d'arrêt et de correction bu Thiès. Euh, dafa am benn détenu bu fa nekk buy turu wuyoo ci turu Moussa Kandji mi ngi foofu depuis 2004 24 novembre 2004 lañ ko placé woon sous mandat de dépôt kon fi ñu toll nii mu war a nekk ci 11 ans de détention avant jugement maanaam fukki at benn yoo xamante ne mi ngi toog di xaar ñu àtte ko euh, à ce jour. moom mooy boo jëlee 37 prisons yi nekk ci Sénégal yëpp moom mooy détenu bi nga xamante ni moo gën a yàgg ci kaso bi ci nga xamante ni ñu ngi toog di xaar ñu àtte leen alors en 2012 ñëwoon fa li nga xamante ni moom mooy cour d'assises bu Thiès pour ñu juger ko mais juge bi dafa daal di dàq àtte bi parce que dafa seetlu ne waa ji àndul ak sagoom alors bi loolu amee nag juge bi demandé la production d'un rapport d'expertise médicale maanaam benn kayitu docteur boo xamante ne day wane ni diw mi kat àndul ak sagoom su ko defee mu bañ ko tëj kaso parce que nit ko àndul ak xelam place am du kaso nga xamante ni dinañ ko mën a yóbbu dalal xel wala feneen foo xamante ni dinañ ko mën a jël à charge loolu la woon ba tey jii nii loolu amul parce que ay famille amuñu moyen boo xam ne mën nañu fay moom mooy expertise kon looloo tere ñu juge ko ba mi ngi foofu toog di xaar dans un sort incertain donc 11 ans de détention préventive nekk na loo xamante ni gëj nañ ko gis depuis année 98 wala 2008 mooy jamono mbirum ñoom Ino. parce que xam nga ni ñoom seen bande bi tëddoon nañu 2008 euh, lañ leen àtteewoon ci session spéciale cour d'assises tëddoon nañ fukki at benn ñu soogal loon àtte alors cas bii nii nag man dama ciy interpeller le ministre de la justice dama ciy interpeller l'observateur national des lieux de privation de liberté. dama si interpréter toutes les organisations de défense des droits de l'homme que ça soit Amnesty International Ligue sénégalaise droits humains RADDHO article parce que ñeent yi ñoo ci gën a fës ñoom lañu gën a gis ñu yëngu man leen di interpeller par rapport ak vraiment kaawu Moussa Kandji bi nga xamante moom la juge bi demandé parce que condition boobu la juge bi teg pour que mu juge nee mënul atte nit ku àndul ak sagom tant que indiluñ ko loolu mënuñ te ab famille amuñu moyen bi yaakaar naa ne kon am taxawaay boo xamante ne war na ci am pour que mu nekk loo xamante ni day di day kii parce que tamit bu fekkente ni indil nañ ko kayit googu dinañ ko mën a appliquer sax article 50 code pénal bi nga xamante ne moom mooy wax ji jëm ñi nga xamante ne dañoo taqaleeg seen sago leen képp koo xamante ne ba ngay def jëye bi ñu lay toppee moo xam dëll wala kirim àndul woon ak sa sago wala boog ñu forcé la ci te amul woon sañ ta bañ eh bien tu n'es pas pénalement responsable maanaam euh, sa responsabilité pénale dañ koy dindi loolu kenn du la ci mën a toppee voilà benn euh, alerte boo xamante ne bëggoon naa ko lancer balaa ñuy sóob ci dossier du jury ah. d'accord ñu tijjee ko ak ban. ñu dem ci ci ci mbiru ñu dem actualité ba wala li gën a récent wala ñu. bu la ci neex rek ba tey ci bële la ci neex rek ñëwal ci étudiants yi parce que ñu ñu suivre tuuti kuuru kuuru kiiwu maam Anta bi ah. waaw euh, vendredi bi passé njiitu réew mi dafa teewoon fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru comme ni ñu ko gisee ah. Mm-hmm. li ko fa yóbbu woon moo doon ay projets yoo xam ne daf ko faroon lancé ak pavillon yu bees yu ñu waroon inauguré et cetera. Mm-hmm. Euh, ba mu ñëwee foofu nag visite bi daal di xawoon taxu suuf tuuti ndaxte am na coow lu bëri lu fa juddu ginnaaw loolu ñu am nit ñoo xamante ne dañ leen teg loxo ñii ay étudiants la yoo xam ne dañ leen jàpp di leen jiiñ ne ñoom ñoo doon sànni xeer cortège présidentiel bi ñii ñeneen nit la yoo xamante ne commissariat bu point e dañ leen tog loxo ngir maanaam dañ doon def wàllum càcc ak yooyu mel ne xam nga manifestation yi moom fu mu am noo def ñuy ras dem rax ci mm-hmm. euh, ñeenti étudiants yooyu ñi ngi commissaria central daanaka tey ji sax la seen garde à vue war a jeex parce que garde à vue bi durée légale bi moom euh, ñaari fan yi waroo ko weesu dul nga am ndigalu procureur de la république ñoom ñu ngi foofu ñu teg leen loxo ay ñeenti lañ bokk na ci am na ci ñoo xamante ne sax daanaka ay libéraux lañ kon li nga xamante ni euh, loolu mooy information bi loolu mooy concerné li nga xamante ni moom mooy fay euh, mais man euh, pour kaaw jooñ ñu jàpp certes sax acte yu mel noonu kenn du ko cautionné parce que président de la république institution la kenn amul droit di attaqué wu ci cortège am loolu il faut le souligner violence également kenn mënu ko cautionné mais li may attirer attention wu nit ñi lenn kese la parce que dama seetlu depuis deux ans depuis deux ans yi ngi nii saa ba ñu jàpp ay étudiants leen bu ñu leen jugé dañ leen di relaxé ñaari at ngi nii te li may wax ni avocat yaa ngi koy dégg procureur yaa ngi koy dégg juge yaa ngi koy dégg ça fait deux ans yoo xamante ni li ëpp ci dossiers yi ñuy jàpp ay étudiants di ko indi tribunal bu ñu leen jugé dañ leen di atte dañ leen di setal alors lan mooy waral loolu certes acte bi day am sax am na ñu sànni xeet ci cortège présidentiel mais la question est de savoir est-ce que ñi ñu teg loxo nii ñoom ñoo ko def c'est ça la question fondamentale loolooy nañ nu muy demee ku foofu rek dañ lay buub daal c'est la raison pour laquelle mooy demander à ce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor dossier wala ñi ci def enquête ñu def attention bu baax a baax ñu am élément argument yu dëgër parce que tamit dara gënul metti nga def sa enquête préliminaire ba pare jël dossier bi yóbbu tribunal tribunal jugé ni jàpp ni ñi def jéye gi indilee indiwoo leen ñi ngeen indi sama kanam defuñu ko yi ñuy jàpp ay étudiants nii lay mujjee c'est la raison pour laquelle may demander à ce que ñu ñu gën def attention ci wàllu googee parce que nekk na loo xamante ne pratiquement juge bi ñu indi la juge bi relaxé la day désavouer ñi def enquête bi loolu mooy seen enquête bi ni nga ko defee baaxul alors pour ñu bañ yegg foofu yëpp ak tamit faaya critique yi nga xamante ne ñi ngi am ci enquête préliminaire yëpp vraiment manifestation de yooyu ak ki ci bokkul ñi ñu jàpp en flagrant délit ak tamit kenn ku ci nekk ñu mën a déterminer sa degré d'implication ci mbir mi parce que juristes yi dañuy faral di wax ni la responsabilité pénale est individuelle. d'accord man bëggoon naa xam un peu côté côté responsabilité boobu noonu ngay wax ñoom ñeenti étudiants yooyu nga xamante ne jàpp nañ leen bu fekkee ni tey jii. Mhm. ñoom ñoo def parce que ba tey jii nii juge juge bi waxagul kenn xamagul seen seen seen kii ci loolu implication ci mbir mi. Mhm. bu fekkee. ñoom ñoo def lan moo leen ci mën fekk. waaw li leen ci mën fekk day dépendre ci délits yi nga xamante ne enquêteurs yi moom la leen di toppee parce que enquêteurs yi mën nañu viser ay délits mais bu ñu leen defeeree yóbbu tribunal procureur da mën na mën na soppiwaat délits yi nga xamante moom la toppee bon boobu léegi nag maa ngi dégg lu bëri loo xamante ne dañ koy avancé te yooyu yëpp ay spéculation la rek maa ngi dégg ay tentative d'assassinat ay yëpp liñ ciy wax yëpp amul lenn loo xamante ne feeñ na ci dossier bi parce que leen balaa ñu leen di defee dañ ciy am autorisation procureur délits yi nga xamante ne enquêteurs yi visé nañ ko wala boog crimes yi wala boog d'une manière générale infraction yi ñu visé bu ñu ñëwee procureur am na sañ-sañu soppi ko def ko leneen bu gisee ni leen di toppee ni amul léegi nag lépp day dépendre ci li nga xamante ne moom lañ leen di toppee bu fekkente ni dañ leen di toppee délit ce qui mooy dañuy dem ñu juger leen à la soit ñu procureur da yóbbu flagrant la plus prochaine audience ni procureur dafa gis ne am na ñeneen ñu laqatu ci mbir mi wala ñu pousser étudiants yi ñu def li day yóbbu dossier bi instruction maanaam daf koy confier juge d'instruction boo xam ne day gën a xóotal enquête bi xool ñeneen ñi ci bokk ñan ak ñan lañ ak tamit ñi nga xam ne ñoo doon jéem a sànni xeer cortège présidentiel wala bokk étudiants yi ñu teg loxo ñen ñoo leen pousser li def ñu def loolu te bu ñu ko joxee juge d'instruction bi juge d'instruction bi am na délai 6 mois pour def li nga xamante ne moom mooy enquête am loolu bi nag mooy bu fekkente ni dañu dañu viser ay crime maanaam bu fekkente ni da ngay jéem euh, ci kaaraange nga xamante moom mooy njiitu réew mi wala yu demee noonu eh bien lay yóbbu ci juridiction boo xamante foofu la ñuy jugé yi te du leen lu dul chambre criminelle bi nga xam ne moom moo remplacé cour d'assises ci réforme yu bees yi nga xamante indi nañ ko ci code pénal ak code procédure pénale. man je dirais juste que ni ni ma ko waxee woon ce matin c'est vraiment regrettable euh, parce que aussi bu fekkee ni à chaque fois yu mel nii man li Pape Ndiaye souligné sànq c'est vrai que depuis ñu jàpp ñooñu moom moo ñëw man moom lay xalaat parce que souvent dinañ jàpp étudiant euh, ne jàpp nañ ko bu ñu leen yóbboo après du mujj fenn xam nga il faut aussi euh, yenn saa yi nga àtte nit mu wóor la ni que lii ñu koy àttee defu ko. yow ci sa jëm bopp boo tëddee doo nelaw xam nga ci yu mel noonu souvent takk der yi seen mer la ñuy demee ak seen fugg rek jàpp kenn amaana ka ñuy jàpp sax euh, deful yoonam nekku ci donc on espère que ku ci nekk liñ la ciy takkal na doon réellement li nga xamante ne yow yaa ko def mm. mais man pour man jamono ji solution bi ñu war a jël mooy vraiment fexe ba la main politicienne génn à l'université parce que c'est vraiment malheureux temple du savoir boo xam ne chaque jour ñu interpellé fa ay étudiants te à fi nga toll ci sa àdduna nga bëgg tout temps di am ay jafe-jafe ak wàllu yoon ëllëg ak ci biir dafay répercuté wu ci sa ci sa ci sa avenir mm-hmm. am na yoo xamante ne mënuñu la ko fi dénk ci réew mi bu boobaa xam nga euh, rajo télé moom ak presse écrite ñu ngi fii mm-hmm. dañuy daal di fàttaliwaat la woon démb mu xaw a euh, euh, mu xaw a métti un ci ñoom métti également ci seen parents yi donc pour man le plus important ce serait ñu ñu ñu ñu gën a bàyyi xel ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy interpeller ci yu mel noonu. Mm-hmm. ñu woon nag vraiment les étudiants à beaucoup plus de responsabilité ah, pour man euh, le président qui vient à l'université li la naqari def leen ko sous forme de mémorandum ngeen toog ak moom wax ko li leen metti même bu fekkee ni faju ko au moins askan wi dinañ xam ne yéen vous avez agi en responsable ah. mais sànni xeer toog fii kenn mënu ko tolérer après tout yëf bassesse la le président c'est c'est c'est moom mooy institution bi gën a mag kenn mënu ko tolérer donc euh, on espère également que justice bi dina def li war a li mu war a def et puis ñu ànd ci aussi ak euh, indulgence quand yenn saa yi xelu xale moo leen di jàpp et que ci un peu les waaw loolu am na solo ah loolu moom yaakaar naa ne vraiment am na solo te bu ci bàyyi xel rek euh, jafe-jafe yi dina dina am li mu wax également li mu souligner ci li nga xamante ne moom mooy acte de vandalisme yooyu sànni xeer cortège président moo xam da ngay lakk bis mooy c'est des actes yoo xamante ni kenn mënu ko cautionner am na ni comme ni mu ko remarqué rek am na yeneen manière yoo mën a revendiquer def say revendication lu dul euh, ngay def lu mel noonu waaye tamit beneen wàll gi mooy tamit ñu mën a xam ñi def ak ñi deful mm-hmm. ki ñi nga xamante dañu la jàpp flagrant délit ak des par exemple ku mel ni secrétaire général adjoint mel bi moom xam nga jàppuñu ko flagrant délit li feeñagum ci ci ci ci enquête bi nga xamante euh, moom la ñuy def fële commissariat bu central avant Macky Sall di ay propos yu léegi sur la base de ces propos ñu njort ne moom moo poussé voilà voilà loolu mooy li nga xam ne moom la ko ci taxal mais nekkul ne dañ ko jàpp sur flagrant terrain muy muy def manifestation yooyu également tamit nekk na ay mbir yoo xamante ne vraiment war nañ ci gën a bàyyi xel parce que la même chose la ñu noté woon dans le dossier Bathie Seras ak Amina Ngirane ak tamit yeneen dossiers yoo xamante euh, moom moo ci ne même bu fekkente ne am na ñu détecté ne peut la mën a mën a mën a mën a teg loxo loolu nekk na loolu certes nag policiers yi renseignement yi ñu am ñun amuñu ko. peut-être que am nañu yeneen renseignement ci nit ñooñu ñu poussé leen ñu jàpp leen. mais lu ci mënti am tamit lépp dina feeñ ci bu amee dunuma ci dossier bi <laughs> nekk di bàpp ci suuf yooyu noonu du la ci génne. du la ci génne fexe naa ko bàpp sama xarit la ci génne. xam naa loolu xam naa loolu sama euh, ni <laughs> ni ñu koy defee mardi bu jot ñu dalalaat keneen ci plateau Petit Déj Balla Diouf Cœur de Lion nee naa leen euh, du Cœur de Lion. de la foofu de laa bëgg ñëw dama doon xool ndax ñeme nga ko wax eh, Balla bàyyi nga bëri laa la njëkk laaj. bon lu tax may bàyyi bëri. <laughs> xam nga eh, boo teglee ay defet tegle tegle tegle hmm. man daal foogoon naa ne boo ñëwee ci plateau bi tey danga naan ma bàyyi naa bëri du dëgg. waaw mais damay bëgg a wax ni rek coro moom ba may dugg ci bëri fekkewul <laughs> ba may entraîné di rey sama bopp fekkeewul ba may am combat fekkewul <laughs> ba may daanu fekkee na ba may daan tamit fekkee na. donc quoi ci lan lañ teg war ma war a bàyyi bëre <laughs> amaguma at yi war a tax ma bàyyi bëre donc voilà question boobu maa ngi ko doon xaar <laughs> bon làmb nag moom comme li ko Coro waxee rek bàyyi bëre moom day dépendre ci nit ki rek. Mhm. tu vois parce que yow yaay nekk xale am benn passion nekk ci. donc vraiment tey su ma mënoon def lii ngeen di def tey dama koy def dem jàngi am niveau bu ngeen am ñëw am liggéey di fayeeku ko par weer comme ñëpp parce que tamit làmb bu ñu demee ba dugg ci ñun suñu état jeune mooy amuñu woon chance dugg école man mun naa wax ni jànguma école euh, alxuraan laa jàng daara laa jàng ci laa màgg loolu laa xam ba ñëw dakaar dugg ci làmb bien vrai que fii laa juddoo nag mu doon suma passion déjà avant dara bañ koy njëkk a def séntuwuñu ci woon xaalis séntuwuñu ci woon dara honneur la woon at ay affaire tu vois affaire groupe tey ñu dem bañ ciy fay ay millions dem ba ñu xam ñu ci dem ba ciy mën a dimbali suñu bopp di ci dimbali ay nit donc loolu buñ ko naree bàyyi te waxtu bi jotul tamit dina métti trop xanaa coro utal ñu benn daggal ñu salaire boo xam ne chaque weer moom xam nga. nga am foo jàpp. <laughs> ba tey yàlla baax na mais man ci Mm-hmm. yaakaar naa ni masuñu ko gis ci làmb bien suir bu dee am na fii bari Eumeu Sène def na ko ma joon def na ko Tyson def na plus que six défaites ak ñeneen ak ñeneen mun naa lim ñu bëri non en fait waxuñu six défaites nit am ko mais tegle ko tegle ko laa la wax Tyson ñaata defet la tegle compté ko. <laughs> Tyson ma joon tegle na fi six défaite nekkul ci plateau waaye demoon na sax ba yegg ci benn niveau bu xëy na tànk yi xaw a dem mais sport moo demee noonu xalam demoon na bay moo demee noonu tey mm-hmm. mun naa wax ne du man kese tey boo xoolee sportif de haut niveau yëpp si seen carrière dañuy am benn moment franchement bu ñu gëmm sax bu ñu dooree bal mu dugg wala am na ñoo xam ne tey lu ñu def daan. Mm-hmm. wala am na ñoo xam ne tey ñu ngi rey seen bopp di entraîner di vraiment di jox li nga xam ne mooy seen passion wala seen liggéey gëddëm. Mm-hmm. mais c'est que li may wax rek chaque jour àdduna ñun ba ñu ñëw àdduna comme ni li nga ni ne en enceinte bi day dem accoucher hôpital am euh, livret de. livret de famille ñun bu ñuy judd ci àdduna bu ñuy ñëw ci àdduna am dañu am livret de vie yàlla def ñu defar lépp ñu am tracer ñu suñu yoon lépp lu ñu war a am ci àdduna at lu ñu warta lu ñu war a amul ci àdduna lu ñu war a ñàkk ci àdduna lépp bind na ko kon tey lépp li nga xam ne mi ngi ñuy arriver ci suñu yoon dafa bokk suñu yoon te du ñu taxaw ne diw la ñu taxaw ne kenn parce que lépp lu arrivé doomu aadama bi suñu borom la neex et je pense que lii suñu borom la neex du ma tax a découragé du tax ma am benn arrière pensée bu ce soit damay gën a gëm sama bopp parce que boo xoolee teg naa teg naa fi sept ans daanuwuma toog naa sept ans daan samay morom yëpp du dëgg ñu naan bàll fii bàll fee bàll fee kon bu liy arrivé nag je ma gis ni man sama yoon la bokk et voilà du ma tax a découragé gën a góorgóorlu gën a rey sama bopp gën a xam naa ni man ñi may bareel mënuñu ma xam naa ni du sëriñ lañ may daanee du leneen xëy na malchance moo nekk ci man bu dañagul maa ngi ñaan yàlla teggi ko. à un moment donné woo fi woon. waaw dem topp bitim réew. Mm-hmm. Euh, ñu bari jàpp ne euh, à un moment donné da nga wonoon ginnaaw sa ngemb. Mm-hmm. moo tax bi nga ñëwaatee xëcc na bëgg jëlaat ngemb li ngemb li ci boppam moom moo bañ lan ngay tontu ci loolu. waaw gis nga euh, àdduna nu may wax ne rek toujours y a des hauts et des ci branche boo touché ci àdduna bi du dëgg. Mm. bon mun naa wax ni man dafa yàlla loo xam ne. di daf may war a di jox ay ndam di ma defal lépp lu ma bëgg wala def lu ma yàlla loo xam ne tamit war na ma di teg ay defet wala lu metti tout le temps du dëgg nit ki nag da ngay nekk sa carrière mu neex trop nga am entourage am ay homme de confiance am lépp dem ba si sa carrière ngay def ay contre performance mooy da ngay am ay problème familial problème personnel tu ay déception tu vois c'est un tout quoi qui qui qui forme une personne donc ci bu ci amee yenn yu faaye rek toujours day day yow je pense que problème bi loolu la et moom boo gisee mu tukki woon un moment donné bëri woon na ay problème yu fi xewoon tu vois mooy suma kaaw problème écurie Fass bi tu vois man ma nekk élément wu nekk doomu écurie lépp lu ma def ci àdduna wala lépp lu ma am ci àdduna ginnaaw yàlla non dañ ma mus jàppale problème nag mënul ñàkk xew ci kër du dëgg problème bu amee am négligence am frustration am du dëgg loolu moo indi tey sama génn face mais li waraloon ma tukki vraiment loolu la woon parce que bu problème amee face man ma nekk fas mu metti ma trop mënuma toog ci dëkk bi ñuy polémique polémiquer ku nekk di wax de gauche à droite comprendre nga te bëgguma woon wax ci cas bu mel noonu je j'aurais préféré amoon benn opportunité dem tukki donc dem tukki saisir opportunité boobu ba mu jeexee tamit ma xam ni suma passion làmb la mosuma ko bàyyi bon dama dem xool reculer xoolaat suma bopp xoolaat lu bëri defaraat lu bari xool ni su ma ñëwee fii moo fi jaaree moo fi tegee suma tànk dinaa jàll ba mu ñëwee tamit ci loolu laa nekk bon ba fii may waxee ak yow nii. non ce que tukki boobu noonu tamit problème bu am rek nga daw coro Euh, bu ñu ko mënee tuddee daw bien sûr est-ce que du la du du culpabiliser tamit un peu le fait que. Euh, nga ne coow am na rek. pas du tout pas du tout. parce que c'est parce que moment boobu daa am la doon reprocher sa bopp moo tax nga daw. pas du tout. Mm. pas du tout parce que problème bi am na ba ba sedd parce que problème interne loon problème écurie ku ma xam tey xam nga ma ci écurie Fass defe naa ni sama carrière marqué nañ ko bu baax a baax a baax. jàppale nañ ma bu baax a baax a baax un moment donné yow fi nga xam ne kër gi nga xam ne fa lañ la formé kër gi nga xam ne fa nga bëree vingt cinq combats am fa dix huit victoire ak sept défaites kër gi nga xam ne tey lépp loo xam ci wàllu làmb fa nga ko xamee tey bu demee ba problème juddu tey ma ñëw entrainement ñu ne ma doo dugg entrainement ma taxaw ne mais la moo xew. ñu ne ma non parce que Gris Bordeaux nee na boo duggee biir entraînement du entraîner. mel ni Gris Bordeaux da gën a yey ci écurie bi. non du question gën a yey ci écurie parce que à un moment donné am na combat combat bi peut-être ëpp na ko doole tu vois mu am ay doute. man nag xalaat doute bay dute ci ko bokk xalaat xalaatoon naa ni man li ma gën a marqué ci situation yi mooy man foogoon naa ni ci àdduna euh, Gris Bordeaux du mës a am doute. sax wala ñu koy muy sax xaw am ay doute ci man parce que fi ñu jaar la. dëgg yow aussi daawoo woon def yu louche xam nga yenn saa yi làmb day am. Mhm. Euh, mhm. ñi lay jaay dañuy nekk ñoo xamante ne ñu mhm. lay jege la. est-ce que loolu est-ce que Gris amul woon écho ci yu mel noonu ba tax mu dute woon ci no non parce que ba léegi nii may waxee yow coow yi foofu la yem man écurie Fass ku ma xam Sénégal sax laa wax xamuñu ma ci ñàkk fayda. xamewuñu ma ci ay affaire yooyu noonu ñuy wax fréquente écurie bii wala fréquente mbër bee wala bii wala baa man du ma génn guddi duma dem foo xam ne wowuñu ma fa du ma dugg lu sama yoon nekkul dama am lu ma gëm am am ci lu ma nekk te ci loolu laa nekk te ku ma xam wax ma la sax écurie Fass yoof gii ma dëkk boo wëree yoof laaj tey man maay kan boo duggee Medina laajte man maay kan ñu wax la man maay kan du dëgg man nëbbatuwuma man nit yabuma wala nit miinuma miin goo xam ne dina ma fekk ma taxaw mu may proposer quoi que ce jëm ci nit lu ñàkk fayda nit xalaatu loolu mayuma ko benn doomu aadama du dëgg moo tax ba loolu amee ça affecte affecté daf ma metti ma toog am na koo xam ne maa ngi ko ciy gërëm maa ngi ko ciy gërëm muy président écurie Fass muy Abass Ndoye moo njëkk ñëw ne ma mbër ma ne ko waaw mu ne ma instant situation yi cool na yow cadre nga ci écurie bi am na yoo xam ne réaction yi waruñu la si gis demal sa kër nga toog ba combat bi beesu te ni ma ko waxee noonu laa ko defee dama dem suma kër toog combat ba mënoon naa dem stade indi bur xajamal comme ñëpp sama kër laa toog pour rek ñu ne moo fa ñëw wala moo defoon lii wala moo taxawoon fële dew ma ba affaire bi passé comme écurie Fass dafa yaatu ay kilifa ñu nekk suñuy papa ñu ñuy encadré du ñu teg ci yoon ba fayru passé jëkkit naa suma téléphone woo ñëpp képp kuy dirigeant wala ngay encadre encadreur écurie Fass yëkkati naa suma téléphone woo la wax ak yow ci situation bi ñi ñëpp di ko dalee ci président bi ba ci Tafa Gueye ba ci Malick Gueye ba ci Moussa Ñing Thierno Dramé ñoom ñëpp yëkkati naa suma téléphone woo leen ba bi amee bon gis naa ni ñu si bëri bëgguñu si bippe moo wala je pense que nit waaye groupe nekkee ci kër problème am je pense que mag ñi ñoo war a njëkk a jóg ah dox ci tànku jàmm wax ci woo nit ñi xale yi bu fekkee ni dafa am lu lu lu ñu war a wax wala lu ñu war a wax ñu wax ko mais yàpp y a des non dits jusqu'à présent mooy wax ak yow kenn waxu ci ki ci wax mooy Abass Ndoye ba ma demee ba xam ne nag jaar naa fépp jaar ci Tafa Gueye wax ak ñëpp ma gis ni ñëpp dañu xaw a dafa mel ni dañu dëggal doute yu yu giri am tu vois bon ça ak mu gën ma metti nag bon foofu nag la un moment donné war naa def benn recul bàyyi gars yi xool bu fekkee ni am na lu ñuy seet buñ ko seetee ba gis ko mu doy leen bon ba bu xamee dina am ma def recul am opportunité dem voyage yi tamit tu parce que àdduna moom doone fii rek laay toog parce que ku dul tukki tamit du xam fu dëkk neexee ni ki da ngay am ay projet am yeneen programme parce que làmb mooy suñu moom la ñu def métier mais à vrai dire du métier parce que làmb amul retraite du dëgg niki dangay da préparer sa bopp bien avant que voilà amaguma 40 ans xaajaguma sa am 40 ans bañ may bàyyiloo bëri. Eh, <laughs> man mun naa la wax suma at musuma def jugement xaw ma nuñ koy am nuñ koy defee awma 40 ans xaajaguma ko am bi wat ci mbër est-ce que euh, Balla am na ko. bien sûr hygiène de vie bi maanaam euh, bañ a. lekk gi war naan gi war bañ a dox sa santé beeg bañ a topp. xale foofu bañ a topp xale yi bëre daanu du ay du ay ñàkk lekk bu baax. parce que hygiène de vie moom hygiène de vie weesuwul weesuwul. Mhm. tu vois nga am environnement bu sain. tu vois nekk ci li nga xam ne souvent moo lay may ngay def ay performance et je pense que maa ngi ci manque chance nag c'est ça n'a rien à voir ak hygiène de vie. pour man manque chance bokkul ak hygiène de vie parce que bëri nañu fii bëri di daan amuñu benn hygiène de vie parce que am mbër laa ju maa ngi secrétaire général association des lutteurs en activité bon hygiène de vie tey mun naa wax ne mbër mu jàngul jàng daara nekk ci ñëw ci làmb à bas age def ci vingt cinq combats vingt six combats am ci dix huit victoires am ci huit défaites je pense que loolu hygiène de vie ba léegi nii ma mën a taxaw di bëri di bëri ay xale yu ndaw di leen diriger di def li ma bëgg sama combat je pense que hygiène de vie weesu loolu malchance nag mun a ñàkk. je pense que malchance la gane si mayel Pape Ndiaye <laughs> léegi dafa bëgg génne te yaakaar waru fi mën a génnee noonu. <laughs> cest à ko nit ñi waxu ko loo xamante ni peut-être mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko jàpp comme réponse bu satisfaisante. Ah, par ah, rapport maanaam Gris Bordeaux jékki-jékkiwul rek porte ay soupçons ci yow waaw man sûrement am na ay lu ndaw lu mës am seen diggante wala loo mës a wane wala lu tax mu njort na yow mii nii. warul man daal bu ma sañoon su ma sañoon parce que wax ji ça fait ay at ñu ngi koy wax ba léegi. du dëgg jot na jot na ñu leeral. man su ma sañoon nga yow sa wàllu bopp nga invité Gris nga posé ko ci question. parce que man sama wàllu bopp jaaxal na ma man Gris le fait que mu am doute ci man déjà loolu jaaxal na ma Gris ba ñu nekkee xale ba léegi kon fii nii sa relation ak lan la. depuis moom xaw ma parce nga ni parce que boo xoolee Gris famem ñëpp ay frère am ak ay petit sœur am sumay dañuy waxtaan dañuy wootante du dëgg mais Gris depuis problème bi mu amee ba léegi déggante wuñu gisante wuñu mosuñu toog wax ci donc. mais loolu dafa yàgg ci ay nit yoo xamante ne ay xarit lañu woon. doon bañ nekkee xale ba léegi. déggoo ma ñoo doon ànd di bërëndoo mbapat ñoo doon ànd di du dëgg ñoo doon ànd di bërëndoo mbapat mm. ba dara dul dara ñuy ànd sama kër ñuy fréquenté sama galerie set médina buñ ñu jógee entraînement géej kusum jaar ci Ernest comprend nga ñu jël fa ay nen lépp sama sama charge. ñu ñu ñu koy dundee noonu muy ñu ñuy. partagé lu bëri daal maanaam. mosuma ko yor kenn mosul yor kenn. affaire de xarit la. affaire de xarit la woon tey ah. bu ñu jaaree koñ ba maay res ndekki bu ma jaaree koñam mooy res leneen mooy res leneen. Mhm. loolu on partageait tout. du dëgg nondi ci biir moom mi noonu. non nondi yi mooy tey jusqu'à présent sénégalais yi mënuñu xam lan moo xew ci diggante Balla Diouf ak Gris Bordeaux ñu xam lan moo tax Balla Diouf génn écurie Fass di yi c'est juste la du dëgg tey problème ba ma amee ba léegi chaque jour ñu ma ciy laaj maa ngi ciy wax. dafa mel ni sax que nga approché Gris Bordeaux puisque yow nee nga sax xarit la am na lu bari lu ngeen partagé pour man coow bu amee man tey jii euh, coro mu ma def dara ragalu woo coro ne ko coro def nga ma nàngam. bu fekkee mhm. sekk nañ ko je le fais. Mhm. nga ne yéen ñaar depuis temps booy yéen ngi ànd demandoo mbapat nangam ak nangam. coow am na làmb ji nee nañ la bu fa dem parce que yedd nañ la nga toog sa kër. Mhm. passé na amal grandeur u yëkkati sa téléphone woo Gris Bordeaux. nekk dama bëgg ñu toog moom amul grandeur u mais yow la ñu woo ma yow la ñu accusé non man ñu accusé kon man duma ko woo. parce que moom moo am xel bu ñaaw ci man bés bu bu xelam bu ñaaw di continuer. di continuer amul problème bu xelam bu ñaawam dëñee je pense que Gris waru woon xaar sax wala man waruma xaar parce que man awma contact bu Gris Bordeaux xaw ma fu mu dëkk. ah xaw ma fu mu dëkk aw ma contact am du dëgg. mais c'est grave. c'est pas grave. c'est pas je ci ay nit ñu ànd depuis. mais àndoon nañu àndatuñu léegi maa ngi écrit maa ngi écrit yoof maa ngi yoof. maa ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci ay. activité maa ngi samay activité euh, euh, Zeyna mhm. ñàkk kilif teef bi ñuy wax face dafa mel ni dafa am. parce que su ma comprendre problème am jusque là woowuñu kenn ci yéen ngeen toog ñu régler le problème ba yow nga génn est-ce que euh, yow ci sa xel demoo benn instant nga jàpp ne Fass xëj na dañu sax faral Gris Bordeaux ci li mu def parce que man li ma comprendre mooy que écurie yéen ñëpp a fa war a yem bu problème amee ñëpp dañu war a toog ñu régler ko ba kuy jël décision dem nga dem mais waxuñu àdduwuñu ba yow nga dem est-ce que est-ce que kon Fass réellement baat am na fa waaw baat am na fa ça dépend ci baat ni mu fay amee. du dëgg tey bu fekkee ni man bu ma nekkee ci kër coow am mag ñi ñoo war a woote indi jàmm. du dëgg bu fekkee ni li ñuy wax ci nit ki walla nit ki sax bu fekkee ni da nga koy takkal donc na nga na gëstu ba xam lu leer mais man bëgguma nga xëy rek ne diw walla benn jóge fële rek. mooy comme làmb yi léegi rek boo nekkee di daan ku nekk di la fréquenté ñi ku nekk di la indil. Mm-hmm. du dëgg naan la moytul diw moytul da pour te dire dal na sax ba dal Papa saw am na ay nit ñëw di ko jéem a jaxase grand frère muy Ousa. Mm. pour te dire pour nit ñi pour pour wala nit ñi bàyyiwuñu kenn du dëgg. Mm-hmm. man nit bu ñëw di ma indil di ma wax ci nit kooku laay ragal parce que xam naa ne yow li nga may indil loolu nga may loolu da nga may yóbbul mais yow am na ñu ne da nga doon liggéey Gris Bordeaux ak di ko yóbbu ci ay sëñ parce que boobu Gris mi ngi ci toll di yëngal faas naa la wax dara dégg naa da nga ko doon liggéey ba mu yóbbu naa la wax benn affaire man écurie Fass ba mu daj boo woon mbër yëpp écurie Fass ba mu daj ku ci nekk li ma daj ci yow ci say bës ci ba dara dul dara ba Lagrose Papa Sow ba ci Forza boo yëpp man sama sama kër lañ doon nekk du dëgg ba ba Gris ba muy bëri daanu commencement carrière Gris trois défaites la tegle man dama commencé bëre toog sept ans daanu ma daan sama moroom yëpp kon moment boobu aw ma jotu liggéey kenn bu fekkee ne am naa man lu may liggéey nit ba mu koy jàpp ma koy defalal sama bopp may am ay ndam man du ma nit boobu taluma loolu ma xamala laa tal na ñëpp am esprit groupe na ñëpp nekk ci jàmm écurie Fass nay gagné man suma slogan loolu la man bañ na ko bu ñu musaa gagné écurie Fass ak ñëpp dañuy daw téye ma parce que xam naa ni kenn mooy romb rek ne Fass nii rek maa ngi sa kaw ku mu mënti doon Fass laa gëm mooy suma xol moom laay défendre défendre moi Jean wala Paul ku am combat laa lay xoolee ma def ci sama énergie défendre too Fass comme nekkatoo fa waaw défendre tuma ko mais ba léegi Fass mooy nekk sama écurie de cœur parce que loolu à sama xol la nekk du deñ du dañ waaw bu ñu ko déggee duñ la mere. est ce que duñu xalaat ëllëg ak ci biir ji boo am nga ñibbi faas. noo man xalaatuma ko nag parce que xalaatuma delluwaat faas wax dëgg yàlla. Hmm. at bëgg gi ma leen bëgg yëpp grand yi fa nekk yëpp paa fa nekk yëpp su may père lañu su may xarit lañu ba ci mbër yi ñoom ñëpp Papa Sow may bëri daf ma woo Forza dafa ñëw yendu sama kër Tafa Gueye numéro 2 chaque jour ñooy nekk yeneen booy chaque jour dañuy déggante kon aw ma ceeg aw ma benn benn lien lien bi nga xam ne ñaaw na sama diggante ak ñoom. du dëgg xëy na juste problème bi ma am mooy mag Gris Bordeaux du dëgg problème bi réglé ñu ko ku nekk a ngi toog sa coin du dëgg parce que nit ki tamit bu amee fulla moo ko may boppam